Vraiment. Tout honneur. Ya, Sajo, ya le. salon bee bari mbalit. salon bi yow man sa voyage yu Inde bi da nga ñëw man man nekk ma wax wax ci lu bari. léegi da nga jël. Mouta nag. waaw. Mouta nag yàq na la nag. tourné. sigil nga tourné waaw sigil sigil demal sigil. After hmm? the line. boo sa rafet jabar boo sa rafet jabar nag maa ngi daal. waaw yow xam nga tey. kii dara yow dama laa xàmmee. moo xàmmee. ñëwal ma. allo Sénégal. kii xaar. day vidéo. waat. ñëwal nii daa rafet de. daa rafet. waaw kii. sigil sigil soo paree solal daal moom. bi dañ may door effort rek. xanaa amoo li nga mën a am mën nga ko bi dugg. léegi

caat génnal noonu nii reetaane rek ma ne sëg bi di nga may topp naa ma reetaan ak. non say reetaan macha allah. yaa ngi utiliser sama reetaan ak. waaw sa reetaan moo ko oh. rafet. umu sa chauffeur bi xam nga man la waxoon ma ne wala accident. man kay bu ñëwul damay wàcc léegi dem parce que minuit jot na te ñu. loxo bi. aawi aawi C'est bon. ci coiffeur ak make-up yaa ci toog instant bi maa ngi jéem. mais Oumy lan moo tax nga taamu mamita lan moo tax nga taamu mamita lan moo tax nga taamu mamita sa bis. mamita lan moo tax nga taamu mamita. mamita mooy bu wóor. gisoo ma nii. taam taam bi baax na wala baaxul. baax na meilleur bi. Ah. <laughs> lan ngay wax lan ngay wax amin internet yi parce que suba ba tey macha allah yaa ngi solo di simeeku euh, def jongoma ah. euh, tubaab fakkaar lan ngay wax say fans yi nga xamante ne suba ba tey yow la. Oh, dëgg la. Mhm. kontaan naa ci. lumière oh, lumière lumière. ñoom trop mhm. Mhm. franchement. parce que tamit xam nga. li liy njaag ñoom ñooy njaag. parce que danga maa jël bëgg ma dugal ma ci seen xol yi man tamit même si man fay toog dama dama ma topp si mamita dama si mamita maa ngi nii pour commentaire yi mamita lañ choisir waaw sa instant sa diggante ak sa waajur bu jigéen parce que gis nañ ko sànq euh, mu wax ba tourné woon euh, tey bon nga wax seen relation yéen ñaar ban complicité ngeen am sa diggante sa yaay da di yaay bu sonn ci ay njaboot xama tey jii nii nga sonn say njaboot ak yëpp un jour jot nga nag koo jël joxe ko loolu tam <laughs> loolu daa metti nga nag koo jox koo ay trois ka yow nga def ak moom ay dix-neuf mois est-ce que Oumy tey euh, temps bi nga def ak boss loolu seen relation même pas six mois ngeen def ci dara comme li nga wax tey koo xamante ne yaa ngi ko xam même pas deux ans nga fas yéene koo jox sa doom. Euh, parce que boobu dafa nekk. boobu dafa nekk nit ku ku baax. góor bu yaru ci góor ñi. góor bu baax. Euh, mën nañu xam ne

boo jour bu mu la annoncé dalaa bëgg a financé wala dalay dalay takk mm. jour boobu noonu ban mbégte nga am ak lan nga yëg par rapport avant ak rumeur yi nu mu meloon waaw kontaan naa trop te tamit aussi loolu bett ma ci moom ndax xam naa ne bëgg na ma loolu moo ci am solo da nga jooy da ngay sëyi da tey loolu la xelal damaa jël avance tey fanaan moo tey da ngay sëy lan ngay wàcc lan ngay loolu parce que néegu sëy yombul ah, dèjà yaa ngi bàyyi say parents bàyyi say famille bàyyi say ñëpp ah, di dem ci beneen kër ah, tey nan nga fas yéene nekkee foofu. parce que tey jigéen fu mu nekk dem togg yàq togg toggam. dafa togg wala sëy bi ci yàgg bose nga ko yamale. non sëy a ngi ci. yaa ngi si sax. daf lay jëni umi mu doon femme au foyer wala tey ndax tey jëni umi dañ koo xaar mu doon femme au foyer wala da dañ koo xaar tey une femme bataan comme ni ñu ko xamee woon yor salon di létti di coiffure ndax lan lañu xaar ci yow après mariage. après mariage lu ngeen gis nag moom leen bett <laughs> xaar leen lépp daal ay surprise yu bari bari ñu ngi ñëw incha allah yàlla baax na. léegi doxal ñëw ci déco bi ñu jëlaale image bi. ah ñëwal ci déco bi. ah mais man sama daal faaw ma sol ko. solo solo ko daal mais man sama daal